coowal muur ak ñàkk muur ci li école yi nga xamante ni ñoom ñoo koy dal di interdire mooy muuraay dafa am école yi koy interdire Ousmane Sonko di premier ministre de la République dal dañ ci araftu fan yi passé coow loolu nag moo waral polémique bu takku takku ku nekk di jox sa xalaat muy imam muy politicien bi muy jàngalekat bi ku nekk yaa ngi ci joxe sa coow sa kaddu ndaxte ki nga xamante ni premier ministre de la République Ousmane Sonko moo ne loolu dañ koy dakkal ci mim réew doo ko defee ku muur mën nga dem jàng ji loolu nag moo waral yenn ci euh, mel ni Abbé Adré Latir Ndiaye dal di maire ba futu mbokki coow ngi continuer ki melni euh, Aliou Sall nek frère président Macky Sall ci momit it jël na wàllam ci débat bi ba taxne mu tuddé bopom promoteur éducatif ci la waxé cadre yo lay waxé muy joxé mu ne mu ngi and ak euh, indi soutien ak ndimbalam ci euh, comité catholique bi di len di woté nañ bolé jamm xool yëpp nek ben loolu la woté mom Aliou Sall ndaxte bu muy woté lu ci cadre mu nek julit mom Aliou Sall moy expliqué ndax ni mu nek di julit bañ frustration plus euh, nañ ànd solidarité ci mim réew loolu moo taxoon mu am solidarité yu yu bëri bëri ci ci catholique yi di leen xamal ne moom mu ngi si wetam en tant que di jullit moom moo ko waral di jullit euh, di euh, jaamu euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ak dëkkandoor moo tax rek muy waxee na kàddu yooyu ñu xam ne yëkkati nañ ko ci jamono yi te ki ko yëkkati di Ousmane Sonko ku nekk yaa ngi wax di fëgg sa dënn di mer moo waral li ñu war ak mooy ñi ñi ñi prudent ñi ñi ñi def jàmm ñuy wax jàmm moo gën di soulever débat bu kii far ak kii farut kooku mbokk yi mooy kàddu alinu Sall del dina wax li nga xamante ni rek moom la gisee ne kàddu yooyu nañ ko teg ci suuf wax jàmm def jàmm euh, ñun jullit yi ak catholique yi benn lañ jàmm rek moo war a bokk suñuy xol kon kàdd yi nga xamante ni alinu Sall moo ko dal di kat moo ko dal di yëkkati di frère président Macky Sall.